waaw euh, tey def nañu vote sans débat budget bi mais budget bi yep, par programme la woon programme yep, yëpp presque euh, wax nañ si débattre nañ si wax si waxaat parce que ministère yi yep, jaar nañ fi euh, lii nag du guleet ñu koy defal Ablaye Daouda Diallo parce que Ablaye Daouda Diallo majorité comme opposition dañu d'accord ni liggéeykat la liggéeykat la bi mu nekkee infrastructure bi mu ñëwee fi, non la melon ñu ne nañ ko defal sans débat parce que ñëpp d'accord nañ liggéeykat la bu mu ñëwee fii aussi tey ji yaa gis parce que dañu ñëpp dañu inscrire woon nit ñi di retiré presque opposition bi sax moo njëkk retiré wu ba pare ñu si des doog retiré wu naan vraiment dañu nañ ko def sans débat parce que lui c'est un travailleur te il a il est resté avec nous durant euh, toute la session mi ngi nekk ak ñun mi ngi xam nañu lu muy def te lu muy def jaral nañu Abdoulaye Daouda nag dafa di nit ki nga xam ne ni naa ne euh, moom moo waroon bakku fii gis naa fi ay nit di bàkku ci assemblée bi mais moom moo waroon bàkku ndax Abdoulaye Daouda Diallo li ma koy waxee mooy euh, teel a regg min xiif teel a regg parce que dafa juddoo ci teraanga màgg ci teraanga jàng am teraanga ñu xëy toroxal ko génnee ko yóbbu ko defaat ko juuti ndax àndam ak président Macky Sall keroog bu muy taxaw ni ma aram man xam naa bu ma ñibbee dañ may dàq. keroog mu ngi téye nii loxoom si jàkk ji image boobu laay xool ba tey mais def ma ne ko boo demee buñ la dàqee nag mu ma ma toog ma ne ko ah loolu wóor na mu ne ma wóor na ma des ak yàlla mu des ak yàlla nag ba yàlla def li mu def mu occupé yenn fonction yi budget euh, intérieur infrastructure ba tey yàlla indi ko finance liggéeyee ma tax waroon naa bew mënoon na bew mais du ko def parce que xam na ne Sénégal moo ko woo Sénégal moo koy liggéeyloo il travaille pour l'avenir du Sénégal dafay liggéeyal Sénégal ëllëgu Sénégal lay liggéeyal moo tax bewul xam na responsabilité bi ñu ko teg de xam na ay responsabilité am xam na diisaay gu ñu ko teg mu dal nag. ànd ak xel taxaw di liggéey liggéeyam si nu mu waree ba ñëpp reconnaître que xammee ni Ablaye Daouda Diallo liggéeykat la moo tax nag sans débat bi am tey. non saa à dire dafa am ñu bëri ñi nga xam ne dañ koo bëgg a seedeel baax ñi nga gis ñuy ñuy naan sans bi benn nit moo fi taxaw opposition naan euh, non non non mais gis nga yow yaa gisal sa bopp opposition bi ñoo njëkk retiré wu. ñoom ñoo taxaw ñi fi gën a mën a taxaw si assemblée bi di wax wax yenn wax yi ñoo ñoo njëkk retiré wu ni ñoom daal. Abdoulaye Daouda Diallo sans débat lañ koy defal donc tey ji coow bi ci bir moy lan nit ñi dañ ko bëggoon seedal yenn yi dañu bëggoon mu taxaw exprimer wu ndax dafa am li muy muy wax muy eh, xelu Sénégalais yi ñooñu nag ñooñu dañuy def ay explication de vote pour xamal que ne vraiment seedal nañ ko luñ koy seedal du leneen moo tax li ñun nag dañuy sante yalla dañuy sante yalla yettude Allah e nelaɗo mum hande yimbe fo jiiku kewi do e oɗo assemblée Ablaye Daouda ari Euh, opposition comme pouvoir nderima mbi wonde ablaye dawouda ne jeri waɗande sans débat te wona ngol ɗo lawol tan meeɗi ablaye noon no mbiyamini kanko foti bakkade saabu kanko o dañi mette o ƴettanoma o nannayi cuurel o waɗata juuti o muñi ɗum ha allah addi président makisall e pouvoir omo fonno darade ɗo bakkono won hen e nderniɗo ina bakko ina mbi ko minen nawi président makisall pouvoir mais o waɗani ɗum par ce que o bewata saabu omo andi responsabilité pawaɗe e dow makko omo andi ko poɗɗo ligganade sénégal omo andi ko ronda ko no teddi ɗum haaɗimo bewde ɗum haaɗimo darade mo bakko ɗum haaɗimo haalde won haallaji kono hande assemblé o ruttinimo gueɗal makko saabu yimɓe min foof ina gandi ko liggotoɗo hayno no ummi infrastructure ko ɗum ɗo kewno ɗo yimɓe mbaɗi coow mbaɗnen mo sans débat ɓe mbi woto mbaɗen sans débat par ce que kanko haadi ko liggotoɗo kaalen aduna nana ko haalata ko ko waɗata ko ɗum noon ko yettiti hen allah e nelaɗo mum min jetta hen allah